de retour sur le plateau matinal Allô Sénégal ñu dikkaat ak sunu yeneen naataango ma dalal Ndeye Pétaw mu ngi ci plateau bi Pétaw maa ngi leen nuyu. naka suba si. mbaa yaa ngi am jàmm bu baax. ñu bàyyi la nga nuyoog sama rakk ji laaw la cat kenn yoo simim réew mbégte lay doon ak bànneex comme ni ñu koy defee tous les mardis et deuxième partie Allô Sénégal ñu indi leen li nga xam ne mooy xew-xew wala fait divers naan lépp loo xam ne xew na ci réew mi lu xëyeeg lu xar yi dañu fay dem daal di koy indi di nuyu sama nattangoo yu mbokkal plateau yi madame Diouf maa a baax Pape Malick le journaliste de tous <laughs> mbokk yeeg xayit yëpp doon wax yéen ñëpp jumaa mu baax Aïcha ma bàyyi la nga daal di dox baax ak pitaaw dalal ak jàmm ñu dalal Asia mu ci plateau bi Asia ñu ngi lay nuyu naka nga def yaa ngi am jàmm ñu bàyyi la ma nuyoo mbokk yi merci ah bi furi na sax. a <laughs> aw ba ne waaye est bu fuddoon noonu ba toog ma ne mu ngi deñ mu ne ma yii lii rafet na ma ne ko nee na da ko gisaat. <laughs> Asi ñu bàyyi la nga déglu mbokk ngi noonu Aïcha di nuyu bu baax a baax mbokk téléspectateurs yi di ñu safoo euh, chaque matin du lundi au vendredi. di leen euh, delloo njukkal bu euh, baax a baax di remercier sunu invité bi fi jóge Aïcha waaye it di nuyu bu baax a baax grande sœur Pétaw ak Pam <laughs> sama sama gars ay di la nuyu bu baax a baax a baax baax. incha allah ci kanam tuuti ñu ñëw ci euh, li nga xamante ne mooy buzz yi ak people. Aïcha en attendant que les éléments de Asia nous parviennent dañuy ànd ak euh, day petaw petaw tey xew-xew bi lan la ak fan xam nga damay xew-xew ba xew-xew sama biir kër tey xew-xew bi nga amoon fële ci Cambérène kër gi nga xam ne ñu ngi wax ne dafa daanu fële ci golf euh, cité douane ki nga xamante ne moom moo fa ñàkk bakkanam muy maman Koura Kane madame Jigal moom moomu nga xamante ne tante la man ndax moom yaayam ak sama yaay yaayam ñoo bokk benn papa donc mu nekk perte bu métti boo xamante ne ci famille Amane Ndiaye Birga Dieye ñu dem demoon nañu seeti ji li nga xamante ne moom moo fa xew gannaaw bi jëye ji amee dal bi daanu ci kawam fi mu ko fekk muy julli ndeysaan mu mujj fa ñàkk bakkanam ñu dem seetaani ko te dellusiwaat jëloon dañu fa benn témoignage. waaw ah, ah, ci la ma fekk ma parce que la femme a dépassé une trentaine de minutes dugg këram après ci la événement yi am euh, peut-être vers dix neuf heures dix huit heures quarante cinq dix neuf heures yooyu daal approximativement pas ci la am. waaw yàgg na fii yàgg na fii fii la doon sëy am fii ci këram ak i doomam ndaw jigéen soxna su baax su yaatu. su bëgg xale yi xale yi dañ ko doon bu topp ba bëccëg xale yu ndaw yi d'ailleurs sax defe naa ñoom la doon utal weccet pour jox leen ko ñëw jox leen ko neen xaar leen dugg ci biir di la ko affaire bi dalee noonu euh, même ñëw di doole yi dëkk ci koñ bi day togg di leen jox moom daal ku baax dem na euh, baat bi moom benn la fu baax fu baax fu nit di di nett baax rek moom foofu la commencé baax bi dem honnêtement waaw Bon, comme toutes les maisons qui sont au bord de la mer en général avec l'érosion maritime côtière la day day day day am problème euh, humidité beeg yooyu mais nag euh, xam nga rek en tant que dëkk bi ni mu demee aussi sa kër mën na nekk ci état mais doo am possibilité pour mën ko gaaw a def na nga ko war a defee da nga koy waajal et defe naa sax borom kër gi ci loolu mu ngi ci woon ak seet nu mu ciy génne mais daal comme ndogal ñëw na moom. ndogal buy ñëw moom day bett ñëpp daal fi ma toog daal laa dégg le bruit moom sa fait un bruit maus amala ma xam ne ma daw dem ci bi ci kaw ne leer na ma xam ne daal bi moo wàcc loolu laa si am non non man bu ma juste à l'entrée ah dama ñëw taxaw nii rek gis affaire bi comme à ciel ouvert amalax ma xam ne daal bi wàcc na bon kër na ma permet sama vraiment ni ma meloon ak moom parce que c'était une femme qui m'était très attachée xam nga am na noo meloon moom ñoo xam ne mënatu moon taxaw foofu sax di jéem a xool yoon dama replier waat rek ñëw toog fii di tudd yàlla. Euh, les pompiers on les a appelés ils sont venus euh, peut-être une heure de temps après mais ça a pris du temps pour seen logistique logistique bi ñëw parce que ñëw nañ xamuñu lu ñuy def ñu nekk ci yàgg warante oto dem oto dikk yàgg na daal parce que entre dix neuf heures et vingt une heures ñu doolu ko génnee ça a pris du temps quand même. ça a mais à juste raison à juste raison gouverner c'est prévoir am na ci yoo xam ne il est bon que les gens di jog di dem xamala euh, xool li nga xam ne jaarul yoon ñu jëlee ko fa parce que duñ toog toujours di constater les dégâts yi constaté les dégâts Aïcha gis nga ko noonu mu nekk loo xamante ne lu métti lool loolu xew fële nga xamante ne mooy cité douane bi nekk fële si commune Guédiawaye mu nekk perte bu métti nag comme ni ma ko waxee rek maman Koura euh, Kane moom nga xamante ne madame Jigal ñu ngi koy massawu baax a baax ndax moom la dal bi dal ci kawam ndax këram la mu ñàkk bakkanam nag gannaaw bi nga xamante ne ay 19h h jàpp 19h ba ay 21h bi pompier bi ñëw fekk c'était trop tard euh, am na ay quelques blessés nag mais moom moo si ñàkk bakkanam Aïcha. oh lu métti. Massa ñu jaale la ko bu baax a baax elle fait partie de ta famille. Euh, li moom dafa dafa daal di métti ci yenn circonstances la ko fekkoon. bi affaire bi di daal. waaw dafa fekk nag sama tante moom dafa fekk juste mu sëgg bi fi muy jullee fa la dal bi daanoo ci kawam. mu nekk oh. loo xamante ni xam nga dafay metti xam nga boo sa gé booy julli moom lu ñëw sa kaw dalay bett voilà mu ngi noonu ni mu dale si kawam nag mu mujj ñàkk bakkanam mu nekk loo xam ne lu metti la nekkoon nag maire boo xam ne si gox ba la nekkoon nekkoon maire boo xam ne maire bu baax la dégg nga pa boobu ko témoigné nga xam ne moom nee na ba mu fay toxu si bi mu fi toxuseeg léegi moom mi paa bi def na fa 18 ans te moom nekk jiitu na ko fa donc mu demoon ba nga xam ne dafa mel ni meeru gox yéen a ñëpp jàmm dañuy xamante mm-hmm, mm-hmm. nekk maire bu laabir bu nekkoon euh, euh, yaayu jirim yi ak bàyyi kon ñu ngi koy massaw bu baax a baax wax ko jaal waa Kaolack yëpp yëpp mm-hmm. famille Ëmba Njaay Birgé ji yëpp ñu ngi leen koy jaal di teg njaal mi si loxo maa Maguette Pay Dramé mu séddale ko famille bi Aïcha ko yàlla yërëm te ko àjjana Pape mu mel ni y a toujours le problème qui est là ay bâtiment yuy effondré ñi te à chaque fois dafay def ay ñi nga xamante ne dañuy construire surtout je parle pas des des des maçons mais je parle des maîtres d'œuvre ñi nga xamante ne ñoo ñooy planifier ñaata béton la ñuy def ñaata ciment la ñuy def parce que ñoo ñoom ñooy ñoo ingénieurs yi à la base réfléchir à chaque fois suñuy tabax que ñu si dëkk après parce que su fekkee da nga nekk si situation boobu rek euh, am na yoo xamante peut-être du arriver mm. mais su fekkee ne bon da def nii rek planifier Euh, après nga jox ay maçon ñu tabax et ñu tabax yow ñu tabax ba pare et puis yaa waroon contrôler déjà état bi contrôlé wul contrôlé wul dara yow mi nga xam yaa yaa maître d'œuvre bi tamit contrôlé wul loolu dara loolu dafay jur ay ay ay jéye je sais pas chaque année la dernière fois rek lañ ko doon moo tax c'est même pas un mois mm. la lañ doon wax batiment yu nga xamante ne dafay daanu il faut il faudrait que parce que à moment euh, situation dëkk su si tollee nga situ euh, comment ça s'appelle euh, civisme ak euh, am esprit citoyenneté dafa baax am na yoo xamante ne autorité mënu si dara am na yoo xamante ne état munu si dara mais nit ki si boppam moom moom mooy am pas-pas am gëm-gëm am lu nga xamante ne moo di patriotisme ba nga xamante ne yenn yi du arrivé bu ñu nee par exemple Sénégal dañaa bëgg mu set. mais autorité bi mënul nit ku nekk chaque personne mu topp si ginnaawam pour nga wëñe mais nit ki nga xam boo naanee café nga sànni ko si mbedd mi par exemple mais loolu si yow la ba amee boo amee esprit de citoyenneté mooy permettre doo def loolu donc lu nekk lu euh, affaire bu ñuy def rek nit ki moom moo si war a commencer pour def ko mais sinon dañuy dëkk si par exemple waaye bâtiment daalu na fii euh, bâtiment weng na fii keroog maa ngi seetaan benn reportage boo xam ne on l'a fait ici à la télé bâtiment boo xam ne le gars mu ngi tabax tabax boo xamante ne benn puxus bu ndaw nga bëgg ko def waaw nga bëgg nga bëgg ko def quatre étage <laughs> xam nga loolu est-ce que yow boo bu fekkee am nga esprit de patriotisme est-ce que di nga def loolu xalaat nga nit yi. nit yi nit di dëkk. mais je parle même pas de bëgg bëgg ay néeg yu bëri. xoolal loolu. mais mais je mais nit ki si bopp lu ma bëgg wax rek moom mooy il faut nga am benn état d'esprit bu positif boo xamante ne boo def dara surtout loo xamante ne intérêt la. mën nga fa luwe ay nit affaire bi daanu seen kaw ñëpp ñëpp de il faut que nga xalaat nit yi man état jëlale naa ko mais damay commencer d'abord ci nit yi am ay mhm. valeur mhm. euh, am esprit de citoyenneté patriotisme nga xamante ne bon euh, peut-être loo lu mën a dugal si problème du dina lu ci dina lu ci génne. xëy na loolu dañuy waxtaane problème bi de manière générale li ngay wax ni benn kaala ci loolu. Mm-hmm. c'est vrai nit ki tabax am pukus bu ndaw ba ko def quatre étages mais ana ki nga xamante ni moo joxe autorisation de construire bi loolu aussi c'est un problème. Asia. Asia dafa dem dafa weng. vous donc. comme comme nu ma mair bi euh, mair bi euh, ordonné que ñun nañu arrêté tabax boobu complètement parce qu'en fait su demee ba yokkuloo ba ba ba yokk ba ba ba romb ñun luñ ko voilà duñ ko attan su ko defee ñi nga xamante ne la ñuy luwee ñooñu ñooy nekk victime yi dee nu munti nu munti mel mais mën nga construire tu peux construire sax sept étages c'est possible mais il faut que d'abord mu am étude préalable Euh, environnement bi daf si joué. fondation suuf si daf si joué. li ñuy euh, utiliser aussi. lépp daf si joué bu fekkee ne yow euh, nit ñi nga xamante ne def nañ seen liggéey je pense. Mhm. def nañ ko. problème du am mais kenn terewul boo nga tabax bu fekkee boo toléré nañ ko parce que am na endroit yoo xamante ni kenn mënu fa tabax bon yenn étage mais su fekkee environnement bi permettre na ko et puis ñi nga xam def nañ seen liggéey def nañ ko je pense pas que mu mu am problème il faut seen liggéey ñu def seen liggéey bon mu mu jeex quoi waaw loolu la rek comme comme il l'a dit ñu ñu ñu bàyyi ci xel rek en plus dee nu mënti mel metti na maire bi nga xamante ni dem na metti na metti na metti na ñu mu nekkal man mi nga xamante ne xaw ma ko metti na ma yàlla na ko yàlla xare aljana rek alors si nous revenons ci cas bi ndey kër gi aussi ni ñu ko gisee dafa mel ni dafa xaw a jege géej waaw waaw xam nga d'habitude aussi kër yi jege géej xorom seeg ndox mi day lekk ci suuf lekk ko lekk ko lekk ko bu benn instant mhm. kër gi pour nga dëkk fa sax loo dëkk fa sax risque la en fait parce que dañuy gis même à sant louis kër yi jege ci kii boo xoolee d'habitude c'est comme sax miir yi day lekku day am humidité donc mhm. loo xamante tabax bu nga xamante def na des années ci suuf bu lekkoo aussi miir yu am ay humidité am na fu muy toll aussi dëkk fa risque la. muy noonu. Mhm. muy noonu parce que kër yi nga xam dafay faral di jege géej yooyu dañ koy faral di dund souvent da ngay wax di defar ak a defaraat. te mhm. xam nga doole nag daj euh, daanu dajul suuf. dëgg que nit ñi boo xasee ba tabax sa kër ba defar ko mu baax rek dëkk fa ak sa famille yaa ngi daw di urjiwaat leneen. Mhm. tout le temps di daaneel di defaraat ak a def yëpp. dëgg la voilà merci beaucoup. merci jaajëfal nañ la ci élément bi nga daal di des ak ñun léegi léegi rek mbokk yi mu euh, bàkk bi noppee ñu di kat ci plateau bi ànd ak Asia ñu daal di waxtaanee nag li nga xamante ni moo di les buzz du net